waaw alors alors suma mbokki Gambien si suma am di jàmm yi ni ma déglu ci réew mi ni ma déglu ci bitim réew man la Samsudeen saar ma dellu suwa tey di Wednesday àllarba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeri august 2021 di leen nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen santa di leen wis a very happy Wednesday am na gars yu bëri ñu ma maa ko ne dañ ma nama géej nañ ma dégg man de waaw ma ni nama naa leen trop waaye fan yi dama jàppoon ci yu bëree bëree bëree bëri démba sax dañ demoon APRC dañ amoon sensitisation pour yëgal nit ñi waayu gars yi foo ñi bu buyaam lañ nekkoon démba pour yëgal leen affaire yi APRC NPP. coalition toog si ñoo def te man nag demoon naa fa te kontaan na trop waaye balaa maa wax loolu dama bugg a gërëm Fatoumata Diakhoumpa Cissé jigéen ju baax waaw fan yii daf ma bett rek kool ma ne ma ma ne saam colonel Sarr la ma dee koolee sax colonel Sarr Sarr dama bugg a jënd five thousand dollars is worth of your books meet me in Conakry nga yóbbul ma ko ci schools si mu identify ñetti schools nag SOS um, Children um, village seen school bi ak school of deaf and ak Kaaba Jahumpa senior secondary school waa ñaari school of children's village yóbbu naa ko fa yóbbul naa leen fukka yim wax. ak um, school of defandom jowoon naa leen fukka mu des li des ñu ko war a yóbbu Gaaba Jaxumpa secondary school xam naa ne su faa dem sax boobu dinaa war a àndaa moom may ko gërëm bu baax nag def na lu baax um, uh, you te di wax rek jigéen ju baax la parce que man ko soo ko seetloo moom ñu ku nekk laa dimbale waaw too bi def ni APRC seen too bi amul dëkk bu mu demut te joxu leen loo xam ne daf leen pett ci ndibal you know di leen jox ay milin machines di leen ñii ñu leen a jox pour seen garden yi Fuuji biñ fa demee rek foog naa ne foofu jox na leen hundred and twenty five thousand dalasis muy téeméer ak ñaar fukki ñaar fukk ak juróomi junne dalasi jox na eh, eh, dolli na leen loolu dolli na gaa pour ñuy def seen garden yi pour juróomi constituency yi nekk Fooñi mu nekk ñu rafetloo moom nag organisation am bi ñu koowa ko wax euh, FRAP Family Rights Advancement ak Protection loolu mu ne pour famille yi seen seen seen seen seen seen taxawuwaay seen seen seen seen seen yelluwaay ñu dem na yóbbu ko ci kanam ak di leen di leen di leen di leen protect daal protect kaw ma ne ko dañ ko waxee ci olof sax di leen mu leen jox musluwaay waaw organisation bu baax la international NGO la noonu organisation boo xam ne government bokku ci te mu ngee def liggéey bu baax ñu ko gërëm ci liggéeyam bi mu def dama ne woon balaa maa wax dara tey dinaa ko ne jërëjëf Fatoumata Jahumpa ci not only ne yaa ngee mais lu nekk fu nekk waaye nga ñëw nga jënd ci suma bug si nga may ko you know askan bi ñoo xam ne dañ néew doole ma ma demee sax ci school of deaf and blind Daniel mais ki ma fa fekk dafa kontaan be mu ne yàgg na di dégg suma tur waaye kontaan na ne yóbbul naa leen ko gis na ma ba pare seen library bi dinañ ci kontaan lool parce que mës na koo liit waaye ñëpp dinañ ko riit ci school bi Uh, dafa fekk sa gaa yaa ngi tëj waaye mu ne ni ko noonu daf maa yóbbu ci classe yëpp wan leen ne man maay bind bug bi ba pare you know um, ñun ñëpp ñu pour ñu xam ne maa ngi fi because daf man ndekete yaa ngi fi ma ne ko waaw maa ngi fi mu ne ma ah yow de loolu dëkk bi ma dee xaw ma woon ne sax yaa ngi ci réew ma ne ko maa ngi ci réew mi alhamdulilah school of fii itam village bi SOS village bi jigéen jafa nekk fekkuñ ko fa waaye gars yi ko represent jël nañ bug si def nañ fa cérémonie bu ne and they were very happy ñoom ñëpp kontaan nañ waaw ñu jógee ci loolu démba ci buyaam la gars yi demoon pour boori buyaam pour def meeting bi pour sensitiser zone bi ci suba si ci la suma xarit bi suma collègue bi général Lantombon Tamba moom ma jël si ne ma nañ ànda because waxoon nañ ko sax mu ne ma su ñëwee dem Fooji ma ne ko man damaa dem mu ne ma dinaa la jël si ñu ànda ñu tase fa ak ñoom ci ba ak soldaar yu bari ñoo xam ne ñu ngi fa woon feeñuñ nag waaye ñoom ñëpp ñëw nañ feeñuñu te kontaan nañ trop na teew nañ ñoom nag wax nañ fa wax yu rafet waaw rafet wax yu rafet yëgal waa Fooñi ne leen te ñëpp kontaan nañ ma daal gisuma fa kenn ku taxaw ne sax ànduñ ba pare waxatuñ ci Fabakary Tombong Jatta honorable Fabakary Tombong Jatta moom itam fi mu nekk dafa gën a yàgg ci affaire bi mu ko gën a xam ni mu ko présenté nii nii présenté wan na leen fi affaire yi fi bi commencé waxtaan bi fu mu commencé coalition bi lañ ci njëkk wax ne gaa yee yónnee NPP ñoo yónnee ne dañ bëgg a liggéey ak APRC ñoom nag ñu wallee ah, kala doon jéem a rey ne la kaay dama bëgg ñu ànd ñu liggéey. kon ah nga xam ne loolu nag am na lu dara wécc yu bëri yu wécceeku ñoom nag war nañ ne ne li ñoo wax ci baro yëpp ñoom gisuñ dara lu baax bon ci baro ñoom xam nañ ne bay ba ba commencement yi coalition bi starté UDP dafa mel ni UDP government la woon go UDP government la woon te ni ko waxee mu ne you know baro sax dafa jële woon yëpp teg ko ci loxo UDP leader bi muy looya Ousseynou Daabo moo doon def yëpp ambassado yeeg ministres yëpp moo ko doon toppatoo mu toog rek di ko seetaan ba gannaaw gi bi mu ñëwee nag mu ne bu gis ne palaasam bi moom ci boppam bi président bi moom daf ko bugg a jël ci la ci lañ duuloo ñu tàggoo yóbbal mu ne waaye bi loolu xapp ne nag you know baro itam gis ne xëy na lañ ko doon wax ne nii la demeewul noonu mu doon di xoolaat beneen site biñ ko gis buñ seet toon parce que ñu ñëpp kumpu ñu ne baro amoo nataay mi koo laaj waaw yëf yi APRC nag ndax di ngi leen mun a booleel ñu mu ne moom bëggu dara ci APRC am na lu ko am na lu doy su bëggee liggéeykat waaye léegi su dellu seen dafa bëgg a liggéey ak APRC lu nekkaa wécceeku li ma leen dee wax rek politique dafa politique dafa wécceeku soo foogee ne politique da nga ci war a nekk jàpp ci ne nii rek laa demee ah yow kon xamuloo la xamuloo li politique waaw adu ah, affaire politique sax àdduna moo mel noonu you know àdduna soo ne li li war a am nii la war a demee warut a ceeñ a tool kon de mun naa laa wax ne xëy sax kon nit ñi duñ takka jabar sax parce que kon takka jabar sax waruloo koo def ba sa sëy kon sëy du war a tas dara du war a am parce que kon dañoo ne rek nii la war a demee na la war a demee waaye da ngaa jànga jànga moo la dee tournée ngay seet li ngaa def Adama Baro ba moo ñëw lam xamutoon léegi xam na ko léegi mu ngi change dynamics si bay dem di reach out gars yi ne leen kaa leen ñu nekk benn nekk benn boobu nag loolu leen ci dugal ñoom ñu dem waxtaan ak ñoom ñoom itam ñu tegal leen conditions tegal Adama Baro ne ko ñu ne li lay suñ conditions parce que ñu ne mag du fecca yàlla naa dee ba pare mag du loo soo gisee ngay you ngay dem di ñaxa ci ron naaj bi kay lu la lu la cee njëriñ la so ñoom itam dañ dem laajte luñ ci soxla loo xam ne yu óor la yoo xam ne boole nañ ci muy président Yaya Jammeh wan ko ne ko lu président Yaya Jammeh lam defal loolu saadaaw da ca war dañ bëgg a nga itam nga indi ko nga defal ko loolu du affaire yi amnistie ah parce que ñi xamut affaire yi you know xew ñooy wax affaire yi amnistie waaye ñoom dañ ko war a lim defaloon saa daaw la ñoom Bori Coly sax war nañ fa démba di wane ne nañ ko defee ñoom fekkee nañ ko honorable Bori Coly mu ne parlement lañ dem sax toog ñu defar sarta yi nga xam ne moo indi ra moo tax su Adama Barrow di wax ne man kenn duma ko mun a def pour rifin Yaya Jammeh ñëw ci dëkk bi sax loolu laa ñu ñëw yàq wax gi yëpp toon ko upside down li ma daa wax rek yàqkat yi fi mu nekk ñu ngi nàmm seen paaka yi fuñ gis loo xam ne mu ngi dund ñu ne nañ ko rendi waaw luñ gis na lu baax la ne li Yaya Jammeh kii naka APRC ak NPP o Adama Barrow ak Yaya Jammeh mun nañ cee juboo ñu ne nañ ko yàq maa ngi gis um, uh, ay ay xam nga la leen a ñu ne ay journaliste la ñooñu duñ journaliste ay reporters activistes yi nga xam ne mënaluñ seen boppa dara ci àdduna si xamuñ dara jànguñ sax soo déggee di wax naa da ngaa wax wax nit ñi lu ñu war a def ak lu ñu war a dala nga war a jàng waaye yow jàngunoo xamuloo dara gannaaw rëy làmmiñ rek di jaay nit ñi dëgër fit musuloo def dara ci àdduna si loo xam ne mun nañoo wane kii moo ko def mun nga ko déglu kii mu yóbbuñu ci kanam ñoo ñooy taxaw di fëgg seen nay naan nii la demee nii la demee nane laa demee intelligence officer la lii laa def xam naa lii xam naa la li te mënuloo am benn record pour war ñu yow li ngaa wax foo ko jëlee kenn maa ngi gis mu ngi binda di wax naan yaxakati la rek mu naan naka um, Barrow dafa jaay pleni Yaya Jammeh <laughs> Barrow dafa jaay pleni Yaya Jammeh xam nga loolu xam ne xam ne ñu ne coalition am na xam ne nag suñ ne ne tëla ñu ne damma na gis ngeen li ñoo wax jaay euh, mooy gars yi gars yi nekk ci biir APRC bokkuñ APRC you know sànne nañ APRC bu yàgga léegi dugal nañ ci seen boppa pour yàqa APRC ñoo ñëw di ñu ñooy dëgëral façon wax yooyu way way waxi soof yooyu naan lan xaw baro de naka di soo ñëwee di wax ñu ne baro jaay na pleni yaayaa jaame ma ne leen kana leen wax ne Yaya Jammeh dafa amoon plane plane yi ñu doon jënd time yi gouvernement ni Yaya Jammeh Gambia ñoo ko moomoon not Yaya Jammeh amul fenn fuñ ko risee ne bii plane yi Yaya Jammeh Yaya Jammeh mënut a plane moom kenn waaye yéen itam waaye suñ ko ko waroon naa may sax plane boobu su ñëwee dañ ko war a dugal ci kofa si Gambia because président yaata mooy ca ñu jox ko ko plane boobu gisuñ fa Yaya Jammeh plane di Gambia lañ fa binda plane yooyu lañ fa plane binda so Gambia government suñ jaayee Gambian government property loolu du property Yaya Jammeh time Yaya Jammeh xëj na waaw mun ngaa wax you know uh, government ñoo ko purchase woon waaye transfer nañ government bi to Barrow government am na right suñ gisee ne lii mënuñ koo maintain ñu jaay ko leel waay yéen itam dafa mel ni rek nit tob ne ma wow Yaya Jammeh naka Barrow jël na néegi Yaya Jammeh State House it's just the same thing kër Yaya Jammeh bi nangu na ko State House as if ne Yaya Jammeh moo moom State House you know dafa am yoo xam ne tof rek moo koo xelaat démba dégg naa Fabakary Tombong Jatta ci meeting am bi mu ngay wax ne ñoom APRC moto yi ñu amoon you know biñ demee di ko claim ci Adama Barrow seen i moto yi dañ ko nangu bañ defee investigation amul benn moto boo xam ne ñu ko binda bi bii APRC moo ko moom yëpp government ñoo ko jënda from accountant general's office foofu lañ sendee bill si ñu fay ko so moto yi ñu doon claim loolu yëpp moto government lañ woon Yaya Jammeh lan daan fay ñu ñëw ñu indi leen ci dëkk bi waaye duñ leen daan registre pour turi kenn pour oh parti kenn government lañ ko daan def yuñ registre wut sax ci turi government la nekk soo ñoom ci lañ xam ne sax ñoom lañ doon daaxee noonu ah amul ñu ana moo tax bi leen biñ leen eh, baro joxe sax moto yu ay moto dañ ko registré léegi ci seen tur léegi si biir mun nañoo dem ne suñ kayit yaa ngi nii bii APRC ñoo ko moom di same thing wax na seen affaire xaalis bi amoon nañ xaalis about ten million dollars ci seen account bi waaye dafa am benn ministre moo ko moo ko moo ko moo ko withdraw xaalis bi yëpp after after impasse bi ñu jooy ko waaye mu nekk nag koo laaj ministre boobu ministre boobu dañ la ministre bu déggu la ministre bu ñor koo xam ne tappale bokk ci fenantu ba dara jub la da xam jub la te jigéen la sañu ne moo dem withdraw xaalis bi gars laaj ko lu tax mu ne because ci turam la nekkoon ci moom lañ ko dénkoon óolu ko nag moo tax ñu dénk ko mu ne Yaya Jammeh moo ko wax ne mu woo ulifin ko mu mu mu mu xaal ten million boobu mu jël ten million boobu withdraw ko soo gars yi ne ko déedéet lu tax nga mu ñu dem kool Jammeh ne ko ne waaw kii dafa ñëw withdraw xaalis bi yëpp ndax yaa ko ko sant mu ne moom santu ko ko waaye biñ demee ñu confront ndaw si. wan ko ne ko yow ana lana la wan ne yow yaa ngi wax ne Yaya Jammeh moo la wax ne nga withdraw xaalis moo la autorize nga withdraw xaalis bi waaye moom mu ne yëgu ne euh, euh, nga yëgu ko ndaw si génne leen bu ne kayit yëpp wan leen fi Yaya Jammeh sign yëpp ne leen maa ko autorize pour mu withdraw xaalis ñu kool ko ne ko ah ñu dee gis nañ fi kayit yu wér di wane ne yow yaa autorize mu ne leen ndax waaw ndax yéen seen xaalis la dañ leen di wax naka daa dañ ko war a withdraw lii la leen tontu ñoom ñëpp ñu withdraw kenn waxatu dara ñu gis ne saxla la desoon ca xaalis ba about eight hundred thousand la et NPP jël three millions mu dugalal leen fa lii yëpp Fabakary Dia Tombong Jatta yi explain na ko so di leen wan ne rek ne li ngeen a ak li am dafa utee ni guddee bëccëg you know ñii ñoom démba Fabakary Tombong Jatta fu nekka wax na ko waaye démba waxaatam nga ci suma kanam ne Yaya Jammeh moo leen teg ci mission bi ne dañ dem ñu négocier ak président Barrow ñu am if possible fin loo xam ne luñ mun a rafetalee rek pour dëkk bi juboo moom itam mu am ci jaamaam ñëpp am ci jaamaam bisimilah waaw gars yi nag ñu ne lu tax Jammeh waxut lu tax Jammeh waxut lu ta Jammeh waxut lu tax Jammeh lii la lay jox na leen instruction ñu ngi cee dox. you know ñu ngi cee dox kay waxut kay ah ah, ah des na ci moom parce que yi jaame kenn kenn terew ko pour mu wax su doon président la sax oo koo xam ne spécial VIP la waaw waaye moom nekkaatul président jii dañ koo represent ci parti bi di ko dimbale munoon na everyday mu call leen di waxtaan ak ñoom oo everyday sax mu toog ci radio oo di wax lu baax ci dëkk bi wane man lii la le di dajji sax yiñ koy tuumaal loolu waroon na koo mun a def waaye ñu ne mu ngi noppi mu ngi noppi koo laaj mu ne eh xamu lu tax yaay Jammeh la what is the point lu tax lu tax mu ne du wax xam nga yooyu man loolu mënu ma koo mënu ma koo justify fenn because ñi lay ngeen def seen kettinaay tëlaay kattan pour make sure ne li ñoo ut dinañ ko am te sori nañ ci lool démb biñ ñu demee foo ñi ñëpp a kontaan ñoom Lantambong Tamba taxaw wax wax yu dëgër wan leen ne fii mooy mun a dimbale jaame moo ko war a indi ci dëkk bi moo ko mun a jàppale luñ leen ci wax dañ leen a amul ñaasi itam wax na fa wax gu rafet joolaa la doon làkka waaye <laughs> xam naa ne lam doon wax wax gu baax la wax na fa sax suma tur parce que naka la tuddaati moom mu ngi gën wax gaa yi nekk bitim réew di nasaxal di ñaawal li APRC exécutif bi di def te ñu nga toog bitim réew defuñ dara di toppatoo seen soxla soo leen buggee xam ne soo foogee ne yéen a gën a xam li APRC war a dem fu ñu war a jaar ak li ñu war a def ñëw leen ci réew mi waaye nekk ca àll ba bitim réew di toppatoo ñi leen liggéey ji liggéey liñ nekkee kenn xamu ko you know ku nekkaa ngee toppasoo sa soxla ne ñii ñoom itam nga xam ne lee seen soxla ñu ngi koo toppatoo bés bu nekk ngeen ne ci oh bu leen ko déglu eh yii di ko jéem a yàq loolu foofu la ñaawteef am am na ñoo xam ne sax nax nañ leen beneen élection du am waaw élection du am parce que Yaya Jammeh dañ koo indi dafa am ñu ko indi disemba dañ ko indi mu ñu génnee euh, Adama Barrow State House dugal ko fa by force loolu de man xaw ma loolu naka laa mën amee. parce que loolu xanaa nga ne coup d'état la te man of course man coup d'état musuma koo support musuma support coup d'état bi su ma ko yëgoon suñ ma ko yëgaloon damaa go against yëguma ko woon waaye bés bañ ne taa bés ba ma xëyee suba ñu ne tey la coup d'état ba dama jóg def ci lu ma mën pour make sure ne reyante du am ci dëkk bi waaw reyante du am ci dëkk bi keroog man kenn coy ma jóg dem waxa a soldaar yi soldaar yi bañ a fetelante dañ ko kenn bëgg koo gëm na kenn bëgg koo wax ak you xel yi xol yu bon yi rek o kañaan o war ba xaw ma lan laa ko waxe waaye ñi ñi su dëgga doon am nit ñi toog bés boobu wax li xew di dañ leen ne gannaaw yàlla saara tax keroog reyante amul ci dëkk bi dégg naa jaame sax mus naa toog wax ko ne ne su saar nekkutoon bés boobu ci Gambia bi fii Gambia bi dina tàkk parce que man maa jógee State House ñëw fekkal leen ci Dantin Bridge bi gaa yaa ngi tëj Dantin Bridge bi time bu congaan fayana pour wan leen ne soo leen croisé dinañ ëpp taal bale ci seen kaw bi maa cross maa ngi fekk ñoom Edward ñu ngi loot heavy machine gun bi nga xam ne Chinese made la Belfast ñu ko koo pare koo taal ci kaw gaa yi ma ñëwee ma wax ñoom wax ju ñor ñu déglu ma ma dem mi di yéen waxatee ñoom congaan non time wu congaan dem ma wax ñoom armiya wo mooy euh, euh, soirée waxa a ñoom ba ñoom ñëpp ñu d'accord foofu lañ toonee ma ne leen nag lii des na américain si because américain si yaa ngi ñu jéem a wax a ñoom gars jox ma Baboucarr Njie koppal Njie moom moo ma yóbbu escorte boobu squad bi ñoo ma yóbbu radio Gambia ma dem pour annonce waaye yàlla def yàlla defar rafetal rek parce que suma ma annonce woon xëy na sax nit ñi suñ ko déggee ne coup d'état la kon bi dafa doon jaxasoo waaye because amuñ bonto amul woon fuel ma kool state house explain na lii xew kasaama ma laa ko njëkk a wax foog naa ci la wax Jawara ne ko ne yi dafa serious Jawara dem wax ak ñu suñu yóbbu leen ñuy négocier di négocier ñu wax ak ñoom waxa général Tamba mi lan tombong Tamba mi gannaaw bi gars yi egg si ma ne ko moytu leen mu ne ma noo ñun duñ xeex ñëpp dem nañ ñun duñ xeex billahi nii la demee ak loolu sóor na fi time boobu wan BM mooy one bataillon kana fa nekkoon Awdu mooy woon colonel Awdu Nigerian bi ñu yaakaaroon ne bés bu dëkka dëkk bi naree tàkk ci dëkk bi mooy jog jël commande one bataillon because bu boo gënoon a doole ci dëkk bi dafa daw nu bu ji yu ndaw yoo jël bataillon compagnie yi ci seen loxo Charlie compagnie Momadou Badji ko amee woon yi nangu ko ci loxoom Omar naka Modou Sonko yal na ko yàlla yërëm mu amee woon Barabo compagnie gars yi nangu ko ci loxoom ñoom Sadibou Haydara ak ñoom Sana Sabali ak ñoom Edouard loolu la ñu organisé coup d'état bi State House ñana fa nekkoon Fajara Barracks bi nga xam ne foofooy woon ñooñu waroon naa gën a topp pour defend Gambie bi su affaire bi tàkkee kana fa nekkoon jaww na. ñu ne keroog sa ca suba solut uniforme ajuma la dafa ñëw sol uh, yëre uh, julleekaay yi ajuma te xam na ne dëkk baa ngi naroon naa tàkka because di di previous day yëg ñëpp a ngi dëkk bi ne coup d'état coup d'état coup d'état yëgoon na lu xew ci airport bi waaye ñu ne keroog yu weexam la sol ak kurusam ne dafaa dem juma ca suba bam ne taa dafa jàll panc bi daw ñibi you know garaan gi jàppoon nañ ko nag ñu dem mayaltu ci la xam sax kuy jaw ne parce que man liggéey naa jaw ne state house waaye Jawre moom itam nekkutoon nit koo xam ne he was good because ñoom time bi time yi Jawara ñoom dañ foogoon ne soo déggee tribalisme bi ñoo wax ci dëkk bi time yi Jawara ñoom Jawre ñoo ko daan promote ñoo ko daan promote Jawre soo dem Jawre bañoon na ko ba benn bis daf ma téyel pistol waaw parce que man bi ma ñëw State House Bojang la fa moo du Bojang ñu jox ko parking lot su ñëwee ci bunti gannaaw bi Marina Pare foofu la daan dugga a staff officer su ñëwaat mu ne ma fii laa jaar may ñëw force de ma jaar fa ma euh, euh, seko ba ma ñëwee jël force de seconde de benn soldat benn gendarme mu ne taaw TSG mu ne eh, jaw ne ne bul fi jaarati ma ne ko ma foog ne Bojang fii la day jaar mu ne ma waaye mu ne ma wax la ne bul fi jaarati ma ne ko waaw mu ne ma waaw ma ëlbateeku di jaar ci main gate bi mu ne ma Bojang eh, eh, gannaaw gi mu ne ma jaw ne bul paagati sax ci biir state house bi ma muy ma may génn di paak ci biti billahi nii la ma jaw de def ku làkka olof mu dal ci sa kaw waaw ku làkka ji yaagee la gars yi di ko bàyyi rek ñu ne nijaay ja naka jawara nijaayam la loolu la daan wax loolu mu ngi ko génnee mayeltu biñ ko waxee ne ko jawara sa nijaay la mu xuloo fa xuloo bu métti la lu tax ñu wax ne jawara nijaayam la bokkut ak jawara dara mayeltu <laughs> coow lu rëy laa la wax foofu bis boobu maa ngi koo fàttale ko waaye ñooñu noonu meloon you know gannaaw gi bi biñ ko fa génnee yóbbu ko Fajara Barracks baajo nekk fa ci laa wax ak kasama kasama moo ñaan baajo ñu balal ma may state faj boojang daan paak ma ñu nangu may faa paak loolu la woon tribalisme bu set wecc moo tax bési coup d'état bi biñ ma ne tii ma ne kasama fii state house du ma fi toog parce que fii gisuma fi ñoo xam ne mun naa liggéey ak ñoom ma damaa dem ci saaxo ma demee ci saaxo itam wut explainal leen naa ne ni mu demee waaye loolu laa leen naa wax rek ñaawteef yooyu ay tribalism yu set wecc lañ kay daan play tay mi jawara oh yes soo nekkaan state house amul joola amul break soo se ngaa làkk soo làkkee anything loo xam ne olof soo ko faa laaka di ak laaka rek ñu génnee la fa and Jawne was very good at that in fact maa ngi dégg nag sax kii bu ñaagul nii biñ ko defee nii state guard commander nii sax yéen xaw ma lu tax ñu def ko tay mi after impasse bi you know that Njai Ponkal, you know, he doesn't like, I understand you ko eh Njai Ponkals. waaye Baboucarr Njie moom dañ ko selectoon ci boy yi nga xam ne they were taken to Sénégal pour ñu def training very excellent very good ñu jëleen exam mu pass everything waaye booy bi bu ne ñu ne dafa dem ci TRRC bi te booy bi moom dinaay leen ko dinaay na ko te man vérifié naa loolu lu basic coup de bés bi ñoo rey booy ñoom Sana Sabally ak ñoom kii ñoom Edward ba ñoo rey 11 novembre booy ci àll bi keroog Njaay nekku fa Njaay dafa feebaroon loxoom bee doon métti three days mu ngi excuse duty bokku fa mu ñëw wax ko ci TRRC bi waaye ku mel ni kaañit fenkat boobu ñëw ne Njaay a fa woon ba li waxee loolu. at least waroon nañoo xaar beñ ne TRRC reportam bi pare na lii lañ wax ci affaire Njie waaye kii naka la tuddaati keroog la ko jaw ne call office am moom moo kuluutee maa ne daxa ko génnee ko nekk demal demal demal Fajara Barracks génnee nañ la fii te time boobu ñu ko train mu ngi nekk ci VIP yi nga xam ne dafa waroon naa garder baro te moo nekk booy bu loyal nag te xamuñ ko nag ñooñu coup d'état rek ñu doon def li ñu doon def waaye nekkoon ne ñooñu dañ nekk nit ñu bon la kaañi nga xam ne. kooku dafa taaw ne rey naa rey naa kii ta taxaw ne rey naa waaye ñu ko bàyyi ca liggéeyam ba because mooy kàññi la kii njaay la yooyu lañ fi nekkee jaww de yooyu lañ fi nekkee woon yu bon ba billahi dama dem biñ ma ne jaw ne ne doo taxawati fii naka doo fi paagati biir naka la tuddaati state guard state house dama keroog gëmuma ko parce que ñun ñëpp a dekkoon mile seven moom soo duggee mile seven ci ci lef bi rek foofu la um, uh, naka la présidentiel garde commande foofu la nekkoon soo demee beneen beneen déeg bi Sirif Mbay foofu la nekkoon nga dem ca kanam soo toonee lef nga dem ci kër docteur Ndiaye man soo demee ba ca kanam on di lef man foofu la suma kër nekkoon mile seven ñun ñëpp fa dëkk waaye du daan wax bañ ma ko waxee ma ne ah waaw xaaral ma dem waa laaj caw ne lu xew ma dem fekk gaadam bi ci bunti kër gi ma ne ku ma ne man dama bëgg a wax a jaaw ne de because man de fa ñu ne mu bu ma paak fi Bojang doon paak you know te dama ko bëgg a laaj what's going on ndax dama ko def dara o wat mu ne ma waa xaaral toog 10 minutes jaaw na génnaa pistol yes what is it ma ne ko waaw man I don't know because dama dégg ne nga ne waaw mu ne yee loolu privilège la woon rek pour Bojang waaye loolu pour VIP yi la. ci laa ci la dama war a paak ci biti noonu la demee woon you know ñii nga nag ñii nga fekk nag biir mile two nga xam yen façon yi caractère lañ parce que bañ demee caractère dañ ko daan tooñ sax ne ko yow dégg naa ne yow tribalisme doo dee làkk soose mu ne déedéet moom soo gisee duy làkk olof waa su waxee olof dañ dee ree olofam yi lii neexul moo tax du dee la du daan làkk olof waaye moom nekku tribaliste and so Ah, dégg nga ne yow daan wax ne Jawara sa nijaay la ku ko ko wax mu ne dina xeex a yow lu tax ngeen naa wax Jawara man bëgguma bokkaa moom musuma bokkaa moom loolu la ñu daan wax <laughs> jaw de bi ngeen naa gis ni soo yu noo façon nit ñi laa laa wax ne moo ñu gëte noonu time yi time time boobu you know time yi tribalism bi ñaa daan wax moo fa nekkoon so um, pour waxal leen rek mooy ne um, dëkk bi dem nañ lebul boo xam ne fi mu nekk changes am na te changes bi mooy ne you know jamono soppeeku na you know lañ fogoon yëpp amut yàlla indi na fi mbas mi you know li àdduna soppeeku na li dee ci doomi aadama kenn xamu ko kenn musu koo xalaat ne àdduna dinañ am lu mel li lay balaa waaw suñ maamaati maam ya 1918 lañ laas am balaa bu mel nii waaye lan lañ ci amee you know um, lañ foogoon yëpp am sopoot biñ foogoon ne wool bi dañ leen koo jox lii lële lële waaw dañoo jàpp yaaya jàmme dañ koo def lii dañ koo def lële yooyu yëpp àdduna si amatuñ ci ite fi mu nekk Amérique soo leen doon wax affaire yaaya jàmme dañ laa saagante yi Afghanistan moo leen ñor fi mu nekk xamuñ naka la ñoo def Afghanistan Afghanistan la bu lantag bota mu dee ci loxo la ci seen loxo waaw waxuñ européen si ñëpp ngi naan lii fuñ jëma moom. Afghanistan kenn xamul fu ñu moom nga am saasaay samba booy yi nga xam ne yaakaaruñ dara munuñ dara xamuñ dara di wax naan yaaya jaame li yaaya jaame yooyu yëpp sumaay àdduna si yëpp dafa wi soppeeku dama doon itam dafa ànd àdduna xam ne lañ ko gomloo woon démb dafa utee luñ ko gomloo tey am na ku bind naan eh Sam Sarr kii intellectual dafa intellectually dishonest waaw daf fi nekkoon ni mu daan bindee against ya baro di ko tooñ yooyu bokkaatu ci léegi ma ne leen yee because li ma xam léegi xaw ko woon li ma gis léegi gisuma ko woon te loolu mooy àdduna you know amoon na time man maa Yaya Jammeh dañ mel ni sukkur a rem <laughs> oh yes dem ba digga ñu yàqoo ñu mel ni xaw ma naka lañ ko waxee sax you know um, we couldn't get along ba pare moom soo àdduna si yëpp ne mënuñoo get along ñu bëri ñu bëri kontaan ci ñu bëri mer ba maa foos nekkaajaay ma sekkoonaleem ñu bëri ci kontaanoon ñu bëri mer ba maa nekkaatee moom eni ñu bëri kontaan ci di same thing ba ma jubóowatee moom di same thing nekkaat benn ñu ne lu fi am waaw ña doon wax eh, yaa fi baax ñu ne yaa fi bon ña ma doon wax ne yaa fi bon ñu ne maa fi baax <laughs> noonu la nit ñi mel soo ku foog ne Samsidine Sarr ci lim nekk tey daf ci war a nekk ba dee. su dee even gis na loo xam ne war naa change position am waru koo change kon yow dof nga yow xamuloo ki yow xamuloo àdduna waaw xamuloo àdduna ma ne nit da ngaa sa jabar mu neex ngeen am ay nga xëy suba ngeen xamalante loo xam ne doo leen mun a te dëkk di rest of your life noonu la il faut soo continuer da ngaa dikkaat moom sa du leen jëkk demal Amérique rey na jabaram rey na jëkkëram du fa jeex parce que ñoo xam ne dañ nobante ba sëy am ay doom toog bay mag xëy bi na suba di reyante nga xam ne àdduna mel noonu nit dafa ceeñ waaw loolu kenn ñaan yooyu nag waaye noonu la soo léegi ñuy wax naan Samsudeen Sarangé di léegi dafa mel ni dafa support nekkul ne damaa mel ni damaa support Barrow fi mu nekk because taxawaay bi mu taxawaay fi mu bugg a yóbbu réew mi moo gën fañ ko bëggoon naa yóbbu bañ commencé moo tax ci liñ taxaw dama ko support dama ko support dëgëral ko wan leen ne you lii mooy yóbbu dëkk bi kanam juboo nekk benn waaw ku nekk xam ne you know Gambia jàmm na laaj àdduna si tas na maa ngi riit bu yàggul nii fan yi ñu ne Burkina Faso seen soldaari dañ leen ambush about eighty soldats la terroriste rey mooy mooy mooy islamique waaye tubaab yi ñooy gànnaay ñooy ñooy ñooy jox yooyu gànnaay pour ñuy rey nit ñi rek pour bég soone rek luñ fi sori soo ñun bu ñu buñ buñ mu sa dugg ci loolu bés bu deret gi dooree di tuuru be nit ñi xeeñ ko ba bandi yi nga xam ne deret rek a leen nee ju jël réew mi kerek duñ amati jàmm fa de reste of walaay te ñu bari duñ fi mun a tee dëkk te ñu bari suñ fi mënut a dëkk amuñ fuñ dem ñi gën a fii um, am excuse am fuñ dem bëriwul ah ñiy jógee fii am fuñ dem bëriwul waaw lu néew la nga xam ne su ne woon taal ci dëkk bi ñu dugg ab leen génn dem ci dëkk fu ci dëkk boo xam ne moo génn jaama nañ fa am jaama bariwul how many of you ñoo mun a bugg a daw génn fii ne yaa ngaa dem uti benn Sénégal Casamance also te loolu su tàkkee sax fu nekk ay tàkk su jàmm bés bu kam naka tumaranke Gambie dina tumaranke senegal dina a tumaranke Casamance soo ñu def jàmm def ndànka-ndànka nii wax naan waa xeexay am Russie yi dañoo ñëw nii waxi fen la rek ñooñu liñ laa wax amul. waaw maa ngi dégg uh, démba ci gars yi you know ñoom ñoom lantambong Tamba bi ñoo wax Tamba moom mu ngee kool gaayam yi benn tey ñoom ay affaire yi baytullah yooyu yëpp mu ngi leen a kool leen kaay leen bokk si soo leen bokk si woon ngeen noppi waaye bu leen toog ci àll boobu di leen wa di gomloo nit ñi du dul am am na ñoo xam ne mënuñoo jël sax mënuñoo jël sax mënuñoo registre sax bëgguñoo registre parce que ñoom dañ foog ne bëgguñoo registre parce que ñoom dañ góom ne élection du am waaw ñoom loolu lañ gëm ne élection du am ñooñu nag ñooñu yàq réew mi ñooñu you ñooñu la Tamba doon wax ne leen la ñoom lan tomb amul sens si ne leen yéen da ngeen yàq réew because soo amul voters card voters card su dul dara sax ID card la ID card la ba pare voters card soo ko amul ci National Assembly soo ko soo ne woon presidential election du am sax Yaya Jammeh ñu indi ko. Russian yi indi ko génnee ay euh, euh, <laughs> Adama Barrow State House dugal ko fa ah kon National Assembly élection dafa am te boobu soo am kon doo doo doo vote parce que amuloo carte at least soo registré woon nga denc ko li kii wax xaw ma Tamba ko xaw ma ma amul ñaasi nga jën euh, Tambara sax nga jë nga registré nga denc ko pour ëllëg parce que xamuloo kañ la ñoo registré pour voter card waaye ñu nax leen ci waxi nonsense yooyu ñëw ci affaire yi kii itam mu ngay wax affaire yi ñoom kii naka la tuddaati Abdou Abdou Abdou Abdou is it Ablaye speaker of the former house kooku itam mu ngay wër di jéem a poison may ni nit ñi leen lii baaxul bu leen ci bokka ba ñuy wala yaa jàmme wo joxut kii Fabakary Tombong jaata parti bi mu ne ñoom i neen ñoo toog discours ko loolu nag di wax gi tilimal la rek ñaawal la rek waaye ñun xam nañ Ablaye Bojang storeem <laughs> ñoom suñ ne dañ toog ñoom i neen ne dañ vote pour ne dañ ko jox kii naka la tuddaati euh, a Fabakary pour mu liit parti bi bi Yaya Jammeh demee waaye ñiñ ko jox ñi ñiñ jox place yëpp dañ bañ kon loolu yow loolu ñoo wax yow kay kon waxuloo ñu ne ñi parti bi ñoo ñoo ñoo toogoon ca meeting booba su fa nekkul Fabakary Tombong Jatta moom kenn ki jël parti leader bi because yéen yéen a ngi bugg a fenloo nit ñi ne Fabakary Tombong Jatta waxu ko ne moom moo war a lii parti bi Ablaye Bojang la ko waxoon Ablaye Bojang Ablaye Bojang moom la ko waxoon waaye because ñu ne joolaa la waaw lii du parti joolaa my friend léegi démba kii wax na ko Tamba mu ne leen lii du parti joolaa wax nañ le di fooloo fooñi joolaay tugeer ak non joolaay joolaay non joolaay yëpp fooñi yëpp soo ko lifine about thirty four thousand votes la ñu ngi wax eight hundred thousand votes what is that that's a drop in the ocean you know ngeen di wax naan loolu waa waa bëgg koo def non demee jaame itam bi moo ron dëkk bi ronu pati Joola ah. pati Gambia la doon ram ron you know ñi ko doon gën a xeex sax ñu la doon gën a dimbale waaw and then you know moom dégg nañ ko lim def maa ngi remember ndeysaan naka la tuddaati amoon na benn American general ñu naan ko general Philip Hadi Sheridan moom. général yi gënoon naa décoré mooy di force iris général ñu décoré ko Amérique indi eighteen eighteen hundreds I think it was waaw eighteen sixty three time boobu la nekkoon général nekkoon xarekat bu macca général ko daa xoon xeex amut ñoom Ulysses Grant lañ daan wax ak ñoom George Washington ak moom waaye you know moo tax ñooñu sax nekkoon nañ président waaye moom jotut a nekk président waaye dañ ko décoré seen civil war bi moom gannaaw yàlla bokka na ci li tax ñu gagné seen civil war bi général bu mënoon a xam xam xare yu doon yëpp dañ ko ba ba moo dee dañ ko doon tudda di wax lu baax lu nekk ci moom waaye in 1970 dafa am benn historien bu ñoo wax D Brown koo xam ne dafa dem kis-kis yi affaire yi American Indians parce que American Indians si suleen leen xamee ne ñoo nekkoon Amérique balaa tubaab yi di ñëw waaye dañ ñëw rey leen bañ jeex tak tak tak ba mu des ñu néew you know um, mu binda bug boobu mu ko bindee woon maa ngi remember bug bi mu ngi ko 1970 la ko binda mu teetaal ko bury my heart and wounded me noonu la bug bi tudda bug bu baax soo ko riidee dina la wax American si bi ñëwee Amérique tubaab nekku fa nañ fa ñëwee Virginia be the last American Indian naka Indian chief biñ daan wax um, uh, naka uh, I think it was Sitting Bull waaw Sitting Bull moom la rey at Wounded Knee Wounded Knee mountain la mu ne you will bury my heart at Wounded Knee waaye man fii duma ma fi génne dañ ko fa bëggoon a génne foofu lañ ko reyee soo ñu ngee wane ne général bi bokkoon na ci ñu doon rey indian si rey boo xam ne benn bés dañ ko laaj nag lu tax nga soxor ci indien mu ne indien bi baax mooy indien bi dee waaye indien bu dunda baaxul moo tax mu bugg a rey yëpp di Brown bi mu waxee loolu bi mu bindee loolu ca lañ wàccee maxaama général Saradin ci la history daaneel ko ne kii bu bon la waaye up to 1970 nit yi xamuñu woon ne loolu la ba lépp dañoo waxoon ne jàmbaari jàmbaari général yi la waaye bañ waxee loolu ca lañ daaneel maxaamam statue yañ bildoon sax pour wane ne bi lay sarada lépp nañ ko because of lam waxoon ne the only good Indian Indian bi baax mooy Indian bi dee moo tax mu ne dina rey Indian yi yëpp muy maa fàttaliku na affaire yi Ablaye Bodian bi transition bi amee luñ wax ñu ne ko the only good Joola mooy Ablaye Bojang so any Joola was bad because of that ñu record nañ la jox ambassadeur yóbbu la South Africa xam nga ne kooku dafa waroo naa bañ man xaw ma keneen waaye loolu soo ma ko waxoon dafa ma ne yow sa xeet sa njoboot sa famille kenn baaxut yow rek a baax nga jël liggéey boobu nga liggéey to yow yaay woon speaker yaay jaame jëlee la ci school ñëw indi la def la speaker nekkul ne sa xam-xam sa mun-mun ak sa am-am wala fa taaj waaye bugga la ci xolam rek mu taaj la fa ñu ñëw ne la ba pare mu mu mu sagal joolaay day mu dafa sagal joolaay ñëw ne la yow ñu ñëw naa la yow rek ay doomi joolaa bu baax ci dëkk bi moo tax ñu jox la liggéey ah waaye keroog yow waroon nga bañ keroog soo bañoon kon liñ la liñ laa gisee tey duñ la ko gisee parce que tey niñ laa gisee mooy ne kala waxoon ne yow rek ay doom bu baax doomi joolaa bu baax moo laa use pour nga yàq APRC bi parce que xam nañ ne moom moom moom bugg a buggaam nekkul ci pour APRC NPP nekk benn parce que su demee moom li moo udd ko am xanaa dañ laa wax ne fi mu nekk soo ko yàqee ba ba ba ba NPP APRC li ñoo foom mu daanu dañ laa jox ambassadeur euh, Washington DC ndax UN euh, UN lañ laa yóbbu ambassadeur parce que yow sa bopp ngaa liggéeyal sa bopp ñoo ñooy taxaw tey di wax naan Fabakary Tombong jaata amul right Fabakary Tombong Jatta lii Fabakary Tombong Jatta lii beesuñ ko fen dara gannaaw pour yàqal coalition bi rek kooku itam gars yi wax nañ affaire am démba di wane ne you know like euh, mu ngee yàqa te dafa war a ñëw bokk si ak am na keneen ku ñëw waxuma Matar Jaaju kooku moom maa dégg mu ngee wax ne bañ ko joxe ne ko dama nekk secretary general of APRC after impasse dafa bañ lu mu ne waa ñi ma fa gis neexuñ ma woon ñana ñan nga fa gis neexul leen waxut ñan la déedéet nekkul ne na ñam fa gis moo leen naxari ñeme ñu toon bañoon na daw na nobo ji ak moromam ñu bëree bëree bëri dañ daw APRC Fabakary Tombong Jatta continuer ba tey ñu ngi gis ne nañ na saxale woon foog ne nañ rey APRC APRC ngir dundaati ñoom ñëpp ñii ne fii in fact am na xam ne xam nañ ne aduna neexeewutu ba APRC trostatal leen óolu leen exécutif bi ñaawteef yañ daan def ñaw ñaawteef mbon yaay wone woon xam nañ ne forever duñ leen óolooti moo ñu ne kaleen ñu ci tuur suuf am na nag ñoo xam ne ñooñu bugga nañoo join xamuñ naka la ñoo joine gis na ñu leen sànni ca biti te foog nañ ne amul nañoo def dara ñooñu itam di tàngal ci mbedd mi ñooñu nag dama nee na ubbi buntay dañ leen ubbi buntay ñooñu su ñëwee ñu liggéey ak ñoom suñ mu nee lu ñoo def ñu def ko ñu waaye buñ leen sànni ci benn bi parce que jooju da ngaa créer animés yoo xam ne nécessaire wul waaye man daal li ma ci gis rek mooy ne ah jàmm dina am de su neexee man de maa ngi ci taxaw waaw jàmm ji laa ci gis jàmm mooy dem kanam na ci meloon démba noonu laa ci mel tey waaw 1994 jàmm ji ma doon ut ci dëkk bi ba taxaw. gannaaw gi tej nañ ma nag waaye yàlla gé tax ah, mi ma doon serde génnee nañ ma bañ ma génnee itam ba tey toroxuma ci dara dara dara dara dama ne rek alhamdulilahi rabil alamin waaw dem naa liggéey naa ñu génnee waat ma ma génn dëkk bi dem waaye tey damaa génnaa toog rek na ma fa ma yàlla jaaral ci suma life su ma doon bindaate laaj ma ndax bëgg a faa jaar damaa ne ko bu ci mos bu ci bu ci mooy benn tànk parce que suma life yëpp dama ko ci dama ko dama ci gërëm yàlla dama ci kontaan ci yàlla yàlla fi mu ma jaaral dama ne ko alhamdulilah lim ma mun loo dama ne ko alhamdulilah lim ma xam loo dama ne ko alhamdulilah soo su ma doon jaarale feneen duma ma neex bii moo ma gënal foo bugg a juddoo Gambia waaw ñeneen sa yaay Alhaji Mouhamadou Sarr ak Ajaratu Roxaya Gay ñooñu buggal ñu suma yaay ma juddoo Serekunda yaroo fa magee fa li ma am yëpp ma jaarale ko fa noonu laa ko bëggee de bëggaatuma ci dara te jàmm ji nekk ci dëkk bi ma koo enjoy ci biij bi laa nekk nii dama dem foo xam ne wéef dama ko sori rek dara daxu mu ngi nii su ma suma ma toog ci biij bi yow sangu be set toog dafa mel ni xaw ma lan laay gis gannaaw mu neex réew mu am jàmm lii nag politique bi bu ko koo duñ ko nangu ñun ñëpp dinañ jàppa jàppa suñ loxo dem ci kanam puus ko bi nga xam ne. ëllëg si biir ah dinañ wax ne alhamdulilahi rabil alamin waaw 1994 li ma la wax rek 2017 itam bañ paree taar réew mi sénégalais yi ne dañu duga ñoo Macky ne dañ taar réew mi kool naa général yi ñaan leen ne leen bu leen ko bu leen xeex leen yàlla bu leen xeex ñoom ñëpp ku nekk def na kem kem taari kattanam nit ñu baax pour meeg soo ne xeex amul parce que liñ foogoon ci dëkk bi la rébellion fi nekk du dëgg waaw twenty one a ngee ñëw ah, ah, ah, bëggoon naa dem Amérique sax parce que suma passeport baa ngi bëgg a expire dama bëggoon naa dem pour renew waat ko waaye dama noo dama xaar rek ba élection e-, bi passé ma soog a dem because dinaa am still time pour ma dem mun naa ko xëy na sax eh, renew fii waaye fii la ma bëgg fii laa bëgg a mu fekk ma fi su neexee yàlla ñu meeg soo def nañ ko ci jàmm salaam ñu jàppalante ñun ñëpp waaw te yàqakat yi yal na leen yàlla wëlbati seen mind si ñu am xele defar ñu yóbbul réew mi kanam ñu am jàmm waaw te miig soo rek ah àdduna si moom ah li fi na ko jàmmaa koo taxawal de waaw xeex xare ja giiroo ŋaaroo du ko defaral su doon xeex xare giiroo ŋaaroo la américaine si duñ yàqu biir Afghanistan tey Libya du mel ni mel Irak du mel ni mel yii yëpp xare yoo xam ne ñu foog ne dañ am xam-xam ñu ñoo xalaat moo gën a màcca nit ñi mun nañoo def leen neex yëpp ko ci suñ boppay ci seen boppay raada loolu nag dañ koo moytu waaw waaw foog naa ne fii laay em ak yéen beneen yoon waaw once again maa ngi tànk Fatoumata Diakhoumpa Ceesay jigéen ju baax ci sa tabe gi ak sa mun-mun bi ak sa jombi ak defe naa ni mënoon ngaa bàyyi APRC fii dem toppatoo sa soxla. am nga lu la doy mënoon nga bàyyi APRC sa dem NPP xam naa ne soo dem woon ne Barrow man suma aleel bugga naa ko plow back ci sa gouvernement bi xam naa ne baro dina la jox lu nekk waaye yaa ngi naan sa jom di nga toog ci boori APRC forever loolu ñu la ciy gërëm you are so excellent my sister you know yal na la yàlla yaa nga fi ci wér la ak sa njaboot ñoom ñëpp waaw defal nga ma beeta nga ma yow jënd nga five thousand dollars worth of books you know boo xam ne kontaan naa ci trop bii moom xam naa ne xar mu ndaw laa ci jëndal dem ceeb duma ko jënd béy ah parce que su ma gisee may jënd béy dañoo ne sarax laay génne <laughs> waaye ba pare xam nga nag lii laa namee Babili Mansa xam naa ne nag Babili Mansa su fi nekkoon moom ah wow ma la five thousand books rek de five thousand dollars worth of books xam naa ne soo moytu dafaa dem lan la nekk ci store bi saar li ñaata ngeen fa nekk. suba ko ramassele ko ba pare ngeen order moo xam na ne house bu nekk dina leen jox books he was capable of doing that waaye yàlla na ko fi yàlla delloo si yàlla boole ko ci uh, ñun ñëpp ñu bokk ci benn you know ñu nekk jàmm ci dëkk bi uh, ñu toog 20 naka 18 février 2022 yàlla na toog ca studio bu mu Adama Barrow ñu waxtaan ñu ñëpp ñu ree ñu ne ñu ngi nii bokkan nañ jàmm ji ne ñooy ci dëkk bi waaw wasalaam ba beneen yoon ñu indoo jaama